jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu 5M TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi. Sénégal amatul activiste. ndax bu ma déggee mhm. man la Sénégal amatul ñu fi daan gis koy muy ñoom Guy Marius Sagna ñeneen ñeneen. sa waay pour ma bëgg ma benn affaire laay leeral baat mhm. gis nga Ousmane muy man di yow di keneen ku ne bañ na Ousmane Sonko dalay nax Ousmane Sonko nit ku baax la au fond di cœur opposition bi ci bopp opposition bi ñoo bañ Ousmane Sonko génn dañ koy desité xoolal man mi kañ laa gëj a wax lu ñaaw ak eh, Père Assane Père Assane kañ baatu xam nga ma kañ laa gëj a dal ci kaw Ousmane Sonko kañ laa gëj a wax ci Ousmane Sonko man lu ñaaw wala may wax ci moom parce que doon ko baax la Adamo nit kenn non nit kenn ko bañ Macky Sall mi sax Adamo ma wax la waaw dama lay wax benn wax. waaw. xoolal gars yi même ñii ñii nga gis nii ñi tax ñu ñu def live bi nii li la li la li la delloo siwaat ba nga war ma woo pour ñu waxtaane réew mi xoolal wallaahi billaahi bu ci kenn tax nga wax usmaan loo ko war te wax parce que loolu la ñu bëgg te nit ku yiw la nit ku baax la kuy xëy di jàng alxuraan fi mu toll nii nii nii nii nii nii xam nga Ousmane lan la sasoo ah ay kaamil la ne da koy jàng ba mu jeex te bu sañoon du génn kaso bi tànk jàngul kaamil yi ba mu jeex information bu leer laa lay wax tànk jeexalul nombre bi mu wax ne moom lay jàng defe naa quarante quarante quelque daal la mu ne tànk jeexalu ko moom buggul génn dafa bëgg daf ko bëgg a jeexal balaa ñuy dugg weeru koor te bu sañoon weeru koor la fa la koy fekk information bu leer laa la. non dëgg la mais père opposant taxul ñuy wax. man ak yow nit ku yiw nit ku baax la. man kenn tax nga saaga ko. père kenn tax nga saaga ko mais opposant bi ma daaneel ma daaneel wàcce nga jël keneen. Ousmane Sonko ah. génn am na ñu muy déranger ci opposant yi. bañ a bañ a opposant Ousmane Adamo ma jox la information. ma jox la information. waaw. Cheikh Abdou Bara Dolli wax na ko fi ñu génn. ku nekk di rëy làmmiñ naan li yëg li. Ousmane Sonko xam nga lan moo tax génnul kaso. Ousmane Sonko baax la Cheikh Abdou. xam nga lu tax génnul. booy bii ñuy ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàpp nii naka la tuddati sax ngañ dem ba ture. waaw. moo tax Ousmane gis nga bu toogoon bu toogoon. affaire yi ñu bëgg a ngandal nii affaire yooyu xoolal Ousmane Sonko mercredi la waroon génn plus tard vendredi. plus tard vendredi. xoolal père ñoom ñoo ko def espérer. pour décalaat guerre mais ku fi. décalaat guerre bi di nga waaw merci ñoo ko tey. nga ñu ci biir. ñu ci bari ñuy toog ci internet bi xamuñu lu ci bëgguñu Sonko xamu xamuñu lan boos ma daaneel après ma wàcc ñëw ma daaneel xamuñu fan la affaire yi toll mais dañuy toog di fen rek di fen fen rek fen rek comme ki ma la woon léegi waa jooju nekk Amérique nga xam ne fen rek lay def fen di xëy di fen suba ba ngoon Ousmane moom Baaraayam du rek lay def léegi ma daaneel ah ma daaneel ma daaneel rek après bàyyi keneen ñëw léegi li may daaneel mooy Ousmane Sonko kenn bañu ko ñun mm-hmm. bañuñu ko mais comportement ak jikkoom ak li mu doon woote ñun si loolu lañ d'accord ak moom parce que woote bi xam nga lan moo ko indi ah. waaw. ñi mu nekkal waxuñu ko dëgg. dëgg la waaw. loolu kese la barki sëñ Touba Ousmane ah ñi mu nekkal. waaw ñoo ko waxul woon dëgg. ñenn yi dañ xam nga boo nekkee ay nit yu lay wax yow la yow la bu xam nga xoolal seen façon langage. ay boo ko laalee ay bis boo ko ay bis bis boo tëjee Ousmane Sonko di nga tëj Sénégalais yëpp anañu anañ anañ léegi boobu rek a doon daanale mooy Ousmane ñun bañuñu ko mais comportement am la nit ñi bañ mooy xeex yi mu doon woote nit ku baax la nag barke yonent yàlla Muhammad léegi nag beneen bi mooy yow euh, Assane Diouf question bi ma lay delloo ndax waa mhm. Géejawaay ñoo ma yónni mhm. pour ma wax la ko mhm. comme ni nga ni nga nee woon Ahmed Aïdara dinaa la fal folli Alioune Sall loolu ñëpp gis nañ ko nga def si nga def si liggéey bu am solo mais da ngaa yoreel nag waa Géejawaay bor bor bi mooy Ahmed Aïdara faaw mu wàccaat avant mandaam di jeex dafa war a jóge ci maire bi loolu nag waa Géejawaay yëpp ñoo ma yónni wax naa la ko. kooku moom des na ci waa Géejawaay xoolal man ku mënalul Géejawaay dara soxla wuñ la Géejawaay te mënalul Géejawaay dara xoolal question boobu ah. d'accord naa ci ak yow. xoolal demal ci gars yi boo paree demal ci groupe yi nga wax challenge challenge xoolal Ameth démissionnel. jeex na ba pare du wax katu dëgg. jeex na démissionné. géejawaay dañu soxla wax ko dëgg te bu ñu waxee dëgg Alioune Sall man Alioune Sall defaluma dara. dëgg la bu dul campagne bi ñu daje nii ñu jokkalante xolal musuma séq moom lenn. am na ñu ma woo géejawaay ne ma Alioune Sall sax. dix samay doom ah. samay doom géejawaay lañ juddoo géejawaay laay tiitaroo man samay mhm. doom laay protéger. Mhm. samay doom. waaw protéger waa géejawaay samay mhm. doom ba pare. père man ñu bëri woon ma moo tane woon Ahmed Ahmed Aïdara du moromam sax leen. du moromam day moromam. Alioune Sall li mu def fii Géejawaay ba Géejawaay nekkee Géejawaay ba léegi benn maire musu ko fee def man du ma fenn. non yow maire bu ko fi mës a def moo tax. def naa benn vidéo da ngay dem nga jëli ko mi ngi sama page. dama ne ko dama ne ko Aline dañu la doon wax Aline suñu hmm. quatre cent mille. ñu folli la waa Géejawaay yokk ci mille francs def Aline. xamali ma la suñu quatre cent un mille man sama quatre cent mille may naa la ko mais booy ñëw indil ma mille francs yi ndax ki ma yoreel mille francs yi du wax katu dëgg. wax katu dëgg de.